Amon nañu euh, euh, formation professionnelle am enseignement supérieur am ñaari million muy fukki ñaar mot transport un million muy fukki mot euh, day tamit ba président ci yan secteur lañu wara gëna mëna secteur éducation na ci di ci communauté universitaire éducative bi yëpp dinañ ko dinañ ci sant léegi nag li ci gën a am solo mooy waxtaan ak euh, communauté bi waxtaan ak euh, communauté bi nag dafa amay xaleel amay ay étudiants man ñi ma yore ñu mag lañu ñoom dinaa wax ak ñoom mais tamit dañuy wax ñi nga xam ne xale lii te booy wax ak xale yi ci ci waajur yi ngay jaar ñuy wax ak waajur yi ne masque yi ñëw na doy na mais dafa am njëriñ ci xeex bi ñuy xeex mbas mi il faut que ñu wax ak xalé yi ñuy tak masque yi dina len art ci école yi dina len art ci mbedd mi mais dina art tamit mag ñi ñi fekkat ci biir kër yi donc lolu c'est important ñu ci wax communauté universitaire bi euh woné won nañu li ñuy wax résilience comme euh sen taxawaay mais là dama len di ñaaxat parce que li président joxe ci turu askan wi yëpp la cela veut dire bu askan wi bàyyee ci ñoom xel ñoom tamit dañoo war a taxaw ni mu war a taxaw parce que deux millions de masques ci secteur de l'enseignement supérieur loolu effort yu mag a mag la te ñoom tamit sant nañ ci mais dañ ci war a taxaw tamit taxaw si yore ko wane exemple ci jeunes yi nga xam ne ñoom la ñu nekkal di takk masque yi fu ñu nekk takk ko ci amphi yi takk ko ci cité universitaire yi takk ko ci biir dëkk yi ci dëkk fi ñu dëkk ak fépp et diñ ci joxe message boobu Música